am euh, Albert dafa mu lu am solo mu wax seul le président à la prérogative de convoquer le corps électoral moom moo am sañ-sañ ci yoon pour mu convoquer le corps électoral bi opposition bi dafa taxaw ne nañu na jël date ginnaaw décision conseil constitutionnel na jël date le président jël le président jël président comme conseil constitutionnel gën na atte atte boo xam ne man d'accord naa ci dinaa ko dinaa ko respecté je je prends acte mais balaa may jëlaat date dama bëgg ngeen ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu waxtaan waxtaan boo xam ne ni dañuy waxtaanee.

da ngay def maanaam da ngay jël dans les meilleurs délais euh, décision mais waxuñu ñi nga war a waxtaanal conseil conseil décidé wul loolu conseil conseil n'a pas dit au président acteurs yi xam na ni comme ni ko euh, professeur waxee léegi ñoom ñoo nekk en lice ñoom la ñu validé que ñooñu nga war a waxtaanal parce que réew bi dépassé personne la am na ñoo xam ne ni man gënuñ ma gënuñ ma gënuñ ma siiw gënuñ ma doon responsable politique su fekkee président conseil conseil jël la décision ne président il faut ngeen toog ñu dialoguer ngeen jël meilleur euh, ngeen ngeen ngeen nga jël meilleur décision euh, euh, dans les meilleurs délais une décision mais rafet na président boo xam ne moom moo yilif réew mi moom mooy njabootee ñëpp nee leen mais classe politique bi ñëw nañu waxtaan moo am na ci am na ci sañ mm-hmm. te loolu la def te jàppoon naa ni moom dañ ko canaliser de telle sorte que dañu leen wax transition bi ni muy demee mais surtout jël date actuellement ni date am na xam nga xam nga il faut jamais faire surtout les politiciens te loolu. je parce que je suis trop petit pour donner des conseils mais politique de la chaise vide musul baax ci politique surtout ci politicien li ma xamul ci politique. politique de la chaise vide parce que comme ni ko waxee nit ñi waxee su ñu woowee dialogue dañ la wax nga dégg nga tontu. Hmm. su nekkee dañ lay proposé yoo xam ne neexu la nga ne man neexuma hmm. d'accorduma ci. mais ñu xam ne au moins loolu mooy loolu dialogue la. Hmm. tu peux tu peux ne pas être d'accord. tu peux ne pas être d'accord mais tu viens le dire. mais mais tu viens le dire là on doit le dire surtout que ci pegg toog. parce que politique bi c'est pas 19 partis c'est pas 19 kii euh, nous avons combien de partis dans ce Sénégal là. 300 305 dañuy dem 400 partis dañu war a waxtaan dafa bëri on a on est bientôt à 400 partis dans ce pays là non parce que tout simplement ces gens la ah ils sont 19 ah 20 sax léegi keneen ki rocceeku na léegi ñooñu nag ñoo war a waxtaanee réew mi ci élection yu ñu jëm. mais ñooñu ñoo bokk ci élection yi. waaw mais mais dama ne ñooñu parce que. ñooñu ñoo dugal seen dossier ñu nangul leen. même les citoyens man sama wàllu bopp même les citoyens dañu ci am kaddu. parce que ñoom ñooy wote. c'est pas un processus électoral c'est pas seulement les candidats. mais c'est tout un tout un. mécanisme.